cherchez le bonheur, alors aimez. car seul l'amour apporte le bonheur. Chers téléspectateurs du Sénégal rek contentement à chaque fois je peux même dire bonjour ou bonsoir ça n'est pas un de ne moo ngi cette cette émission d'aujourd'hui tellement c'est une personne spéciale Ben taalibe Cheikh benn je n'ai plus de temps de que que présenter fii nga xamante ni mooy musique sénégalaise des religion de son vrai nom c'est Aboubakry Samb sang bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la dalal ak jàmm jàmm begte ci invitation bi ngeen ñu invité ñu fas yéene waxtaan ak suñu mbokk internet yi. Mm-hmm. Euh, di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ca ginnaaw bu ñu nuyoo yéen ñi nga xamante ni yéen a mbokk téléspectateurs yi je peux euh, internet de euh, Sénégal rek mbégte encore la ñuy amaat à chaque fois mais tey dañuy daal dugg waxtaan tuuti xam carrière ki nga xamante ni mooy Aboubacry Samb ba mu nekkee xale la la daan def d'après ci ay yëngu-yëngu man ni nga xamante ni moom moo toog nii tey di tagg ki nga xamante ni mooy mu Mouhamed fu nga ko yuuxoo ñëpp ne est-ce que Aboubacry mhm. ñu daal tàmbali su ma ne ni kan mooy Aboubacry ci tënk bu ndaw la nga may wax. waaw kay jërëjëf euh, Aboubacry Samb moom mooy benn euh, taalibe rek benn xale boo xamante ne tabaarakallahu mu ngi juddoo fii ci Medina. Mm-hmm. Euh, màggee HLM Grand Yoff waaye léppam tàmbalee fee nga xamante ne moom mooy Zac Mbao. donc nag ñu nekk xale boo xamante ne lépp lu xare war a xale war def rek def nañu ko foo nanu liggéey nañu jàng nañu. ba tey yàlla dogal tey li mu dogal ci ñun muy tagg yonent bi sallallahu alayhi ñuy nekk missionnaire u Cheikh Seydil Hadj Malick waaye ambassadeur sëriñ Serigne kër si donc abu Aboubacry daal moom mooy xale bi nga xamante ne dafa fas yéene bégal képp koo xamante ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ba béggal ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk chrétiens yi donc Aboubacry moo nekk nii nekk tamit taalibe maam Cheikh Seydil Hadj Malick nekk tamit soppay Serigne Babacar Sy kii mooy Aboubacry Je Aboubakari, donc dama question. Euh, mhm. sa ndaw. Mhm. ku ku ku ku je vais pas dire que dama parce que man homme, xam-xam ne un dama bëri mais nag xaw naa am tuuti kii rek. waaw kay euh, loolu nag mënul ñàkk mais nag ku bëri kersa laa euh, ndax daan nañu foo euh, comme ni ma ko waxee daan nañ ànd ak ay nit te dama mënoon xeex tamit. Hmm. waaw ku mënoon xeex laa fi mu ne nii moom bu may wax sama ës moom daanaka ci xeex daaw moon tooñ nag mais ku ma tooñ su ma xasee ba taxaw yow moom. balaa dara di xew dama lay mbëkk. dañoo bëri woon ah bopp bi bi daal sama bopp daal laa yaakaaroon parce que ndeysaan je me bi ma nekkee cité millionnaire Grand Yoff. Mhm. maa ngi leen di nuyu de passage dafa amoon ay soose yoo xamante ne ñun ñoo ñoo ñoo ñoo dëkkoon. mais bu ñu daan eggaat biñ nekkee booy man kooku su ma ko daan gañe dama koy gañee ba pare mu jël eggaat yi ba pare dem man nag damay per te te man maay gañee léegi li tax ñeme ma ko woon mooy bu ñu daan taxaw rek eh, jox ma sama eggaat rek daf Ah, léegi nag voilà ma xam man nag mbëkk bi fa laa ko jëlee moo tax su may wax ci wàllu ës wax dëgg yàlla ci côté xeex la quoi. waaw mhm. ah, côté xeex la te loolu jeex na jàll na. beneen bi ci topp mooy nit ku timide laa. Mhm. ba man dama ko xam. ça se voit dama ko dama ko dama ko xam parce que bëgguma tooñ bëgguma tamit kenn kenn tamit di am lu ko metti tu vois mais daal wàllu ës beeg wàllu timide bi noonu daal la fa demee. Mhm. Ah, ko timide la boo fàttali si say foo bi nga nekkee booy neex nga koy foo bi ma gën a neex nag te ma mën ko ba tey mooy dañ daan daje ci koñ bi teg pono. pono waaw pono. Mhm. teg benn xeer ci suufam. léegi damay daw ba fële rek daw daw daw dal ci pono bi rek salto oh, xam nga foofu bi ma lay wax përie bi waaw ci tefes yi ay përie ginnaaw loolu foola boo xamante ne wax dëgg yàlla daf ma neex waaw loolu dama ko doon fooye foo la boo xamante ne daf ma daf ma neex trop trop trop mais c'était risqué waaw non c'était trop risqué mais nag après yàlla dimbali nañu xam nga boo nekkee xale rek mm-hmm. lu ne ngay def lu ne ngay def c'était c'était c'était vraiment risqué. Mhm. mais yàlla dimbali nañu ba ba ba jàll nañu étape yooyu yëpp. parce que yooyu yëpp temps wu temps wu temps wu xale la quoi. d'accord donc ñu ñëw ci jeunesse bi Aboubacar ci jeunesse bi mooy ki toog nii. Mhm. def grand boubam bu baax macha allah. di mhm. tagg ki nga xamante ni mooy Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar lan moo la dugal ci tagg ki nga xamante ne mooy gën gi mu neef. waaw wax nga ko léegi mbubb bi mooy suñu. mbubb bi ñuy liggéeyee employé. mooy seen drapeau. mooy sunu drapeau. macha allah mbubb bi mu nekk mbubb bu yiw. macha allah boo xamante ne boo ko solee dem. Mhm. waroo def erreur. Mhm. boo ko solulee sax waroo def erreur rawatina nag nga sol ko. mag respecté la ci xale respecté la ci say morom respecté la. waaw da ngay par exemple man damay toog sama oto di dawal. nit. du ma xàmmee wala soit su ma takkee comme masque yi ma daan takk. nit papa la may wax. Mhm. parfois nga dox ci koñ. am programme boo wàccee ci koñ bi nit bu lay nuyu papa la lay wax. jox da jox jëmm. ndax dalay jox jëmm. ndax tamit dalay jox tamit cër. Mhm. donc nag cër bi nga xamante ne moom la ñu la ñu jox loolu dañu koy sante suñu borom. Mhm. donc euh, Aboubacry daal euh, dafa nekk nit koo xamante ne na ma ko waxee woon missionnaire Cheikh Seydil Hadj Malick la. macha allah waaye ambassadeur u Serigne Babacar donc yëre yi daal mooy suñu tenue de travail. Mhm. way wi tamit maa ngi koy yaa ngi ma koy laaj léegi mu ngi dëkkee ci man ci ba sama yaay génnee àdduna. parce que dafa bëggoon yonent bi sa alayhi wa sallam bëggoon Serigne Babacar Sy. Mhm. te comme na ma koy waxee rek wax naa ko sànq nee nañ yonent bi sa alayhi wa sallam mooy tànn ñi koy tagg. kon nag bu ko bu ma yàlla boolee ci ñi koy tagg mhm. dama koy sante sunu borom. Mhm. parce que c'est pas donné à n'importe qui. Mhm. Euh, am na nag ñoo xamante ne mënuñu ko tagg. am na ñoo xamante ne amuñu cër bi waaye am nañu cëru sopp yonent bi sallallahu alayhi par exemple tey munoo tagg yonent bi. sama maam Cheikh El Hadj Aziz dafa ne. bu doon tànn métier bi gën ci métier yi tagg yonent bi lay jël. docteur lay jël. ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey yow mënoo tag yonent bi waaye bëgg nga ma man mi nga xamante ne maay tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc cër boobu nag ma yàlla defal dañu koy sante yàlla bu baax a baax a baax te bañ koo fooyee mm-hmm. te yàlla mu ngi ñuy dimbali depuis biñ ci nekkee ba léegi man lépp lu ma am rek maa ngi ko amee ci barke tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam je te dis lépp lu ma am man maa ngi ko amee ci barke tagg yonent bi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. donc voilà Abouba mm-hmm. ndax tagg Seydina Mouhamed nekk na lu yomb wala ndax nekk na lu yomb non yombul. lu tax. lu tax yombul mooy yow miy tagg yont bi sallallahu alayhi wa sallam tu n'as pas droit à l'erreur yow miy tagg yonent bi sallallahu alayhi sallam booy dox ñëpp dañ lay bàyyi xel. Mm-hmm. mu nekk métier boo xamante ne li tax yombul mooy nit ñi dañ lay bëgg. jinne yi dañ lay bëgg. Mm-hmm. jigéen ñi dañu lay bëgg. surtout te boo ci deful erreur rek boo ci deful nànk rek def ci erreur. parce que tag yonent bi moy li nga xamantene mo gëna gën a nit gis nga bayre deug deug deug deug deugantan boko bëgge am tagal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ndax nu la neex nga xey taggee wala dafa am ay charte wala wa dafa am ay charte nit woro tag yonent bi te jàppoo macha allah sel da nga war a sell ndax tour bi ndax xasida mak ñi ngay wax même boko teyewul jappal ne si sa bir xel mhm. yow mi xasida mak ñi ngay wax teyengoko donc moo tax dafa war a sell xaalis warulaa tiital. Mhm. jigéen warulaa tiital dañ lay wax ne la yow miy tagg yonent bi boo yàkkamtiwul di nga ci am xaalis. Mhm. di nga ci am jigéen di nga ci am allaaxira mhm. ndax ñun ba ci suñuy soxna muy man ak muy kum ci mënti doon ci ñiy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm, mais tagg yonent bi parfois nga way yonent bi sax sallallahu alayhi nga gis nit ne may naa la soxna. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. kon am nga ci jigen mm-hmm. parfois nga way yonent bi nit ne mayna la ci keur man sama premier auto ñu ngi ko ci tag Serigne kon gis nga amna ci auto mm-hmm. amna ci soxna amna ci lepp donc nak lepp lo gis rek ko man ci barke tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam machallah donc lepp yaa ngi ci euh, ki nga xamanteni mom moy mooy gën nga bindef machallah ta yalla yok donc li moy abou bakkar lax way yi ngeen ñuy fent Seydina Mouhamed du la ñuy feeñu la wala lax dangeen toog di ko gis nii xam ni kii dafa bëgg yonente bi. Mhm. mu àgg ko fi wala lu fi mag ñi bindoon ba ko fi nga ñaandi. Euh, dafa am way yoo xamante ne mag ñi ñoo ko bind dañu koy jël wayaat ko. incha allah. nag moom mooy jékki-jékki feeñuñu. feeñu ne. waaw mën naa jékki-jékki toog ci sama volant. Jeki jeki rek ben air ñew ci sama sama xel ma jeki jeki rek way wayantu ko ak numa koy waye nak mën na ci sax taxaw ni legi legi mën na taxaw léegi-léegi way ben air di tuddu sa tour deugenta yaay deg mm-hmm. mën na aussi teud di waja nelaw ben air dikkel ma sama bop mm-hmm. ma jël air bobu enregistrer ko sama téléphone ba pare dem xol ci bindu mag ñi lan la wara mëna way ci air bi donc non lañu ñu way di dikkelé mm-hmm. bo xolé amna na way yo xamante wayon nako talal na sama ñaari loxo di way yonent bi ak waa këram tàllal naa samay ñaari loxo lii du samay pexe xam naa yooyu ay air la yoo xamante ne da da lay dikkal mm-hmm. donc vraiment mën nga jékki-jékki rek nag yonent bi jékki-jékki rek ci mbaaxu yàlla branché la benn air dal na la wala dalul non dal na ma dal na ma euh, mu am benn son boo xamante ne dal na ma yàggul dara ci ci ñu tëdd guddi rek air yu ñëw ci sama sama sama xel hmm. ma jekki-jekki bismil ilaahi maa ngi fent way jëmee ci jëmm ji waral moom sunu jëmm yi ma moom mi nu may xeeti teranga yu ne Sénégal rek lu yàlla amal moo waral moom xayrul anbiya ma way ci loolu waaye itam delloo ci njukkal sama yaay parce que gannaaw yàlla lépp moom la. parce que d'après sama yaay sama yaay man da nga ko kole woon tout trou. waaw man sama yaay sama xarit la woon de moo tax ñu tàkkalu ko donc foofu du ma sax bëgg a dugg. parce que dafa nekk loo xamante ne lu lu yéeme la lu yéeme parce que li tax mu yéeme mooy way wi may way yëpp sama yaay fekkeew ko te parfois nga dem ci ay programme ay maire xam nga ñëw nga xam ne ñii bu ñu sañoon jur ku mel ni yow léegi sama yaay fekkewul loolu euh, dafay xaw a diis ci sama xol waaye dañu koy sante yàlla ndax bi muy nekk ci lalu sukuraat naan ma naa ko jàngal tey taysiir boobu mënuma ko sax xëy na ci moment boobu la yàlla def li muy def ci moom def ko ci man ba may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que tey alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant sunu borom ñëw ma kenn fenuma sàccu ma tag yonent bi rek lay def sallallahu alayhi wasallam donc nak suma sañon mu fekke ko motax à chaque fois dama koy tuddu diko tuddu diko tuddu motax sank moo tax koy wax ci way wi man sant na sama yaay diw sant sama bay diw ndax ñom ñoma yar ci diine mhm. donc sama yaay damay jeki jeki rek duggal ko ci ben way waaw damay jékki-jékki rek duggal ko ci ben way te tag yonent bi lañuy def waaye bis bu ñu fentalee way suñu yaay woy ci sama yaay kase kase kase bu mu bett ñëpp loolu nag ci Sénégal rek laa ko waxee ndax yëg-yëg boobu laa ci am ndax tagg yonent bi dafa metti tem nga jékki-jékki way sa yaay ñu ne noo diw léegi bàyyi na tagg yonent bi waaye nag bu dul woon sama yaay est-ce que danaa exister bay tagg yonent bi kon bu ma jékki-jékkee rek way sama yaay bu mu bett kenn. pour woon suñu yaay est ce que euh, ki nga xamante ne mooy Aboubacar yi dina tagg ki nga xam ne mooy Seydina Mohamed wax na ko sànq ci biir wax de moo tax ñu tàkkali ko waaye dama ni déedéet dafa am benn gest boo mës a def. Mhm. man mi tey toog yor micro étant journaliste. Mhm. mu porté ma trop. Mhm. sama ñaari rongoñ toog sama dënd. ma dendaloon sama waajur bu jigéen maa ngi koy nuyu de passage. parce que je suis l'ambassadeur des talibés. est ce que est ce que. amoon benn vidéo boo xam ni talibé muy nekkoon ci boutique bi. ak geste yi faam nga fexe bu tout gis xale bi. naka la la poussé jour boobu ak fan la toll woon ci ba nga ne carrément kat xale bi nii yaa ko wër ba gis ko nga taal sa oto dem di ko dama lay da nga seddal sama xol ci bi nga waxee ne ambassadeuru taalibe yi nga ndax Aboubacry ku ko xam-xam ko ci social. ndax man bi ma yàlla mayee ay fans fans damay jaar ci digg bi fans bëri na ko yàlla di may fans mu mu mu mu beew yéeg succès waaw mais man yàlla daf ma dimbali bi ma yàlla may ay fans may ma ay soppe dañ ne ñun dañuy ànd ak yow ngir dox ci social soxlawuñu sa xaalis waaye lépp ñu ñoom ñoom ñoo koy def muy waa SAS parfois ma am cas dugal ko mhm. ay nit yoo xamante ne newuñu fi sax bitim réew la ñuy nekk wala ay soppee Aboubacry Samb lañu su ma dugalee benn cas rek ñoom ñooy jël seeni i xaalis euh, euh, euh, dimbali ñi nga xamante ne seen loxo jot seen loxo jotul seen ginnaaw mhm. donc xale boobu taalibe la mhm. li mu manqué woon ba ma xoolee ba xoolaat affection la dëggantaan ndax bu doon lekk la manqué je pense que dootul dund bu doon xiif la manqué je pense que du dund. Mhm. bu doon mar la manqué du dund mais affection la manqué. Mhm. donc dama toog rek dugg Instagram ma jékki-jékki rek di défilé gis xale bi ma xool geste bi mu wër ma ne que ne kii bu sañoon fi xale yi seen place. Mhm. yi ñu nekk bu ñu sañoon moom moo fay nekk. ma jékki-jékki xool affaire bi daw sama yaram. Je je ko pouvais tag me suis rongañ dafa dafa dafa dafa et puis voilà je ne pouvais plus me maîtriser mm-hmm. ma pas ko sama Instagram ne ko pas Instagram mm-hmm. nit ñi ne pouvais que me bi fan la pouvais ma me statut nit ñi me maîtriser. Je ne bi fan la maîtriser. Je ne comme man ci social pouvais dox demee dinaa def tout ba xam xale bi fan la dëkk te yàlla ma dimbali man ci sama sama WhatsApp dara ne pouvais automatiquement ñii ñi dañ ma koy indil. macha loolu nag maa ngi leen siy sant bu baax dama dugal rek ne xale bi fan la dëkk rek am ku ma yónnee message ne ma lii de diw moom moo ko filmé ñu utal ma numéro kooku ndakate ki xale bi ñu ngi ko filmé man ci école bi ma doon jàngee. macha allah te xaw ma ko woon. ma woo contacté waa ji ne ko est-ce que mën nga ma utal numéro xale bi ñu jox ma mhm. numéro sëriñam ma woo sëriñam ne ko dinaa fa ñëw ma xëy dem ci école ba ci boutique ba. yaa yaa ngi yoroon oto bu weex. maa ngi yoroon oto bu bu weex. waaw ngeen baal ma vidéo yëpp mu ngi sama. téléphone ndeysaan ndeysaan ba bi ngay jooy tëdd ci kaw lal soo bu verte. dëgg la boobu yëpp mu mu ngi sama téléphone. <laughs> boo xam <laughs> uh-huh. li ngay wax nii lu dëgg lu nga baal ma continue. ndeysaan ndeysaan waaw xam nga boobu sax sama soxna man bi may jooy tayuma ko je je sentais pas maa ngi jooy mais sama soxna. ndakate moom moo filmé moment bi may bi may jooy. ah léegi man dama ne rek man su ma nekkoon ci xale euh, place xale bi naka laay def et puis euh, may lancé benn appel yow mi nga xamante ne ambassadeur nga. à travers Sénégal rek mooy bul ci bul ci jóg. jamais personnellement man maa ngi la koy dénkaat mooy incha allahu rabbi ambassadeuru xale yi nga xamante ne moom mooy taalibe yi lañu. Mm-hmm. na nga ci sax. parce que soxla soxla nañu affection soxla nañu ndimbal te incha allahu rabbi personnellement man saa yoo ma ci woowee pour xale yi dama ciy ñëw. Euh, dafa bi bi mu defee vidéo bi dafa am benn numéro bu ma bu ma jox. dama mhm. yàq moom wallaahi barke ñu ma ci. ma jël samay vidéo yi ma bi ma nekkee taalibe man. est ma nekkee taalibe envoyé ko ko naka de kooku du Aboubacar. est-ce que est-ce que Sénégal dafay baax parfois artiste. mu bañ a yem rek ci artiste et hmm. ya, abuba donc hmm. dañoo nekk ci waxtaan donc nañ ko ne waxtaan bu ñu paree ñu di pello waaw li nga wax ni sax dinaa ci wax parce que bëri na nit yo xamante ne ñu ngi jël sama numéro di ko jaay sama numéro jaayee nañ ko 15 000 jaayee nañ ko 50 000 jaayee nañ ko 100 000 donc à travers Sénégal rek maa ngi wax ne man ben numéro laa am wala ñaar muy hmm. sama numéro manager ak man sama numéro ah sama numéro euh, mën naa ko fi wax parce que li ma ko waxee du ma star ku ma soxla boo ma wooyee su ma ko gisee rek dinaa jël su ma ko gisul rek mooy xam ne mooy ma koo jël donc sama numéro moom mooy 77 927 68 28 sama numéro manager mooy 77 801 05 05 loolu nag maa ngi la ciy masawu parce que xam naa ne ndax nañ la <laughs> jërëjëf euh, ma laaj la benn question boo xamante ni peut-être ko sax di mhm. euh, fi nekk que ça soit Wally doon mhm. tey bu la woon bëgg a bokk ak benn featuring ndax c'est possible waaw déjà loolu c'est possible parce que ki nga tudd muy Waly Waly sama grand frère la ah euh, ñu bokk ki ñu yar di ajaratu ndey wuri ba yaayam di Kiné Diouf nekk sama yaay. macha allah bëgg yonente bi sallallahu alayhi sallam. alxaaj euh, Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana moom itam suma jur la bëggoon yonente bi. sallallahu alayhi ba euh, émission boo xamante ne di Balago TV. Mm-hmm. am na am na émission boo xamante ne uniquement pour ñuy tagg yonent bi la donc sëgam musicien moo def loolu mais kon ñoom buñ ñu woowee ci tagg yonent bi def benn featuring dañu koy def way bii ma lay wax ne la way naa ci euh, fent ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. mais am na suma benn frère bu ñuy wax Ibra Naajo Ibra Naajo moom way euh, oui. da ah, ci ñi ko arrangé bokk ci ñi ko aaw mhm. parce que peut-être dafa bëgg a sama ginnaaw mais dafa aaw parce que dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tu vois mhm. donc tay eh, man ak mom sax ñu ngi doon waaj dara pour ci koor gi mhm. pour def ben son bu neex ki di El Keita aussi ñu ngi doon waaj dara xamna bis bu ko yalla dogalé dina nekk donc on est là et on est prêt pour def ak ñep ben featuring parce que bo xolé Youssou Ndour ak suñu papa Moustapha Mbaye def nañ featuring bu neex. te nag ah ku bëgg am lu baax. wayal yonent bi ku bëgg am lu baax waaye yont bi ay mu mel ni l'émission presque tire à sa fin donc li may def mooy daal di jox ki nga xamante ni mooy euh, Aboubacar du ma j'ai l'habitude daan du ma wax mukk naan sa dernier mot parce que ñaanu ma ko yàlla. waaye lan ngay tàggatoo. salaat sama cofeel ci suñuy soppe di leen baaluwaax di leen jéggalu ci li ñuy woo duñu jot lu ñuy message duñu koy gis parce que benn personne lañ boo xamante ne dañuy recevoir ay plus de ton tonne tonne message mm. donc nag suñuy xarit suñuy frère ñu ngi leen di baalu ak bu baax a baax di leen wax ne rek lii ma leen di waaye yéena ko moom muy yaa cheikhana ya ahmada tijaani xutubul wujudi wa nicmatal akwaani Sénégal rek TV Serigne Babacar Sy nee na bilaay kenn du Cheikh Ahmada Tidiane xataa yara xataa yara xataa fi ma yara maza tara kenn du sa maam Serigne yaa moom loolu ay ca kenn du sa na euh, Sénégal rek moo joxaat dig daje ci seen beneen numéro ak Chifo bye waaw mais mais maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu xam nga am na ñoo xamante ne faaw ñu tudd leen. ndax danoo bokk ci ñun. ku ci mel ni Rimka Couture. Mm-hmm. lu ma mënti sol di ci tagg yonent bi moo ko ñaw. mën naa am suba programme ne ko suba dama am programme bu xëyee da ciy ne ñaw ko. maa ngi nuyu euh, Jili Fashion. Mm-hmm. sunu waay la waaye itam maa ngi nuyu sama jumeau euh, bi nga xamante ne ay téléphone lay jaay. di sama xarit. Mhm. tamit di yëngu ci social lu ma nekk lu nekk da ciy ne. muy waa Asalih communication. nekk fële ca euh, en face en face en face. Masalikul euh, Jinaan yow dafa mel ni xam nga leen de. Mhm. waa ñooñu ñooñu ñooñu foog ngeen doxantu fa. macha allah waaw foog ngeen doxantu fa incha allahu rabbi gis nga lii li ngeen di def émission yi bu mu yem rek ci ci ci ci ci dem leen seeti. dem leen seeti Asalih communication ngeen xool. dem leen seeti <laughs>